ubbi l'observateur mi ngi ñuy wax ne tribunal instance bu ndakaaro càmbar na kaabu Ousmane Sonko démb ginnaaw fukki waxtu yu ñu plaidoyer suba ci alxames ji ca lay joxe wérdikam ci la ñuy xam ndax Ousmane Sonko dañu koy delluwaat ci liste électorale yi am déet l'observateur mi bind ne avenir u Sonko suba la teg na ci di ñu wax ne lépp moom Ousmane Sonko mi ngi wékkee jamono ji ci décision bu juge Racine Thior audience ba ak na mu demee woon it lépp l'observateur mi ngi ñu koy nittali journal L'Info feelu ko ba dañuy wax moom it ne audience ba bari woon na ay xët-xët démb ci diggante avocat yu état bek avocat yu Ousmane Sonko yi avocat yu Ousmane Sonko yi kenn ca di maître Babacar Ndiaye info ne nañu dem na démb bay wax ne état buy wëyu wëyu la ak état buy bandi bandilu la ñu ko séqal maître Alaaji Diouf bokk ci avocat yu tontu ko ne ko bu ñu demee ba ca kanam danañu xam kan mooy bandi ak kan mooy wëyu anki dina kay nañu ñaari wàll avocat yu Ousmane Sonko ak avocat yu état bu Sénégal kenn mayul dara sa morom démb ci audience ba coup coup ci jamono ji ñuy xaaree dogal bi yoon war a jël ci mbir Ousmane Sonko suba ci alxames ji Le Quotidien li mu ci seetlu moom mooy Ousmane Sonko téyeetul temps ndax dossier bu demee pourvoi dafay gën a yàggal procédure bi te bu boobaa Ousmane Sonko mën na faa jaare folkloo ci dépôt de fiche yi journal Les tënk audience démb bi ci ñetti mbir mu di dëkk ban tànk lay taxawi Sud Quotidien moom Sonko yi bindal ci xëtamu njëkk mooy suba ci la tribunal des tranchées Diop Diama di maître Moussa Diop moom it mi ngi ci yéene kay journal libération mi xëy dik ak ñun ca fa enquête yi jëm ci document yamu yore ak authenticité ba garde à vue gi waroon a jeex ji ci ji yéene bi nee nañu dañu koy prolongé plainte gi ko Aly Ngouille Ndiaye plainte plainte ba parquet ba yónnee na ko waa sûreté urbaine l'observateur mel ne ku naan ñu moo taxit moom ñoom ñaar ñëpp jot nañu seeni convocation Les Échos dañu xamal ne moom maître Moussa Diop fa mu taxawoon fa la taxaw ba léegi la mu waxoon dindiwu ci serwe suba ci alxames ji yéenekaay bi nee nañu ci lañ ko war a defeere tribunal moom mi ñu war a defeere di Diop jama maître Moussa Diop sour soi nañu bërki démb ci altine ji ay boori deux heures matin ci la ñu woon enquête ba la tax ba yóbbu luñ ko woon procureur bi mooy dañu doon bañ kaawam fekkante fa kaaw ba ndax bu ko day compliqué journal bés bi a xamale ak ki waral coow fekk baax ba ca Sorbonne ga mu jàng bañkat bu taq brillant ko yéene kay bi tudde ni mu tuddee boppam moom maître Moussa Diop it journal ko wax nee nañu mooy dañu wax ne ginnaaw karawaanam bi ñu tasoon ca Kolda ak fitna démb ay grenade lacrymogène la ñu ko dogalee ca Podor sursoit nañu ñoo nga cay wax ay blessé yu bari li mu dund démb moom Anta Babacar Ngom borom ax moom ak i gaayam yéene kay bi di sursoit nee nañu sandarma yu Podor yi la ko jiiñ Ousmane Sonko mi ñuy jiiñ dafa encaissé ay milliards yu bari ci waa Qatar moom ko ci jaaxal mooy coow li ba léegi kenn déggu ci kii di lu ñëw yoonam a nga ca Ahmed mu njëkku Libération kuréel gi mu jiite di association des départements du Sénégal seen ndaje mañ doon def ca sali ga ca Mbuur ci la yéenekaay bi xëy dellu si ba dikkaat ak ñun ci revendication yi mu fa yëkkati moom Ahmed Youssouf Benjalou nee na seen bëgg-bëgg bu njëkk moo di ñu taxawalal département yi ci Sénégal seen fiscalité bopp forum Dakar bi ci boppam ndax dee su ko fi jële benn yoon ab laaj la bu journal bii di la public xëy samp ci xëtamu njëkk loolee ginnaaw ab reportage bu mu def ci 31e édition foiru ndakaaru bi am jamono ji jamono ji waa quartier guy murit ga ci Rufisque Est les ko ne nañu noyyiwaat nañu bu baax a baax li tax ne nañu mooy benn waay bu fa newoon la jël leen huit waaja la ñu teg loxo waaji nam doon def mooy da daan déguisé wu bàyyi ba guddi mu dugg ci kër yi di sàcc kër gu mu masaan a dugg day yër néeg yi bu fa fekkee femme mariée buy nelaw moom kese mu génnee paaka teg ko ko ngir jéemoon koo violé